هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى بيتا تفي دهرا لغيري قواتع عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة ورضي الله عن عبد الله وخديم رسوله بوكي jullit بوكي mbokki niñ ko baaxoo defee rek ci waxtu wi del si waat nañu ci liggéey bu sell bu màgg bi muy liggéey bu alquraanu karim di liggéeyu alfulkul mashhun almasnuu min azikril masuun nuy sant suñu borom bu baax tabaraka wa taala ci tawfiixal gi mu ñu tawfiixal ak kàttanal gi mu ñu kàttanal di ko tubal di ko jeglu di ko kañ ci turum ñu yi te mag di ñaan mu jégal ñu jégal mboolem julit bu yewoo ci kaw suuf jégalit mboolem ku faatu te di julit di julli ci sangu te tedd boobu nga xamni mom la doxale digganteem ak lepp lu mu bind ci ku nango ku bañ ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sant nak borom téré bu sel bu mag bi nga xam mooy sunu yaakaar di sunu wasila di sunu cër ci biir lislaam ñu nekk Cheikh Ahmadul Xadim Mawlana Xadim Rasul di ñaanal Sëriñ Muntaqa moom ca moom Bachir nga xam ni moo toog jotaayam ñu borom kàttanal ko te dellu ko wér yàggal ko fi ba lépp loo xam ne rek yéeneem la ci tool bi mu def ko ci coobareem noonu lañ ko ñaanalee mboolem kilifa diine yi di beral cant ak nuyo ak ndokel and ak siar sëriñ khadim ngay delo moom sëriñ Moustapha Lo moom mo Modou Issa ci taxawaay yu am solo yi nga xamni ni jamono nek ñu ngi and ak mom mu jëm itel mbirum l'islam ak mbirum yoon wi diko ñaanal yalla mu yàgg lool ta and ak wër ba lepp lo xamni rek ma bëtam la di yéeneem ci julit ni ak ci talib yeb sun borom katanal ko mom def ko ci coobareem di siyaare mbolam ñi nga xamni ñuy and ak jet ñun jotaay bi jamono bu nek rek mu melni ni ñu ngi jëkkanteeg waxtu rek xamna ñu nekkon ci buntu bi nga xamni moy buntu mataxu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallam ñu dënk ci tuuti rek su ko dem ci jangami mi ni ñu ko waxe rek fan yëpp rek mu mel ni sëriñ bi jumtuwaay yi nga xam ni moom la doon liggéeyale yàlla ak uti yi mel na ni mooy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa moo ci gën a fees mu mel ne it wax nañ ko fii keroog muy ay bor yu tege ci loosam yoo xam ne yu mu war a fay la lépp rek jëm ci sang bu tedd boobu euh, wax ni lil muj lil mustapha al mujtaba haadi alayya bila shakkin duyunum tidahin duyum duyunum tidahi aqdin ah, duyunum tidahin aqluhu barama waxne dama amel ki yalla tan seppe ko jimine fi yep gënal ko ki nga xamni moy aji ginde ji da war ci sama wolof ci luddul ben shik saka ay boru tag yo xamni yu fasula mo war ko fecci mu del wax ne dahum tidaahiya la daazil jahdi xablu mu waxidan li rabbi wahdi te tag yi mu ngi gën a fese ci bi nga xamante ni nekk naa ci ñi nga xam ni ay yéefar weddi yàlla ba ta tëdd ca naaj wa ma nekk ci seen biir di wéetal yàlla moom dong waaye di tagg yonante kan bi sallallahu alayhi wa mun tagg yooyu nag suñu borom nangu na ko bi nangu ko ba tagg yooyu bokk na ci li nga xam ni dañooy dañ maa yàkkamte fop ba tàbbal ma ci aljanna ataytu xayral xalq mathan yabtadir ilal jinaani kafaani man gadar jox naa ngën ji yoneen ay tagg yoo xam ne tagg yi day njëkkante ak man jëm aljanna moo teyit mu fegal ma ayu képp ko xam ne rek war la mu ne mu dellu ne man sama jaasi ba tey mooy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg aalu bayt rasul ak tagg saxaaba yi ndax waxoon na ni soo dee tagg yonent bi te doo ci boole saxaaba yi soo taggee ba noppi dañ lay bindal njuumte waaw moom la waxoon ca muxaddamaatul am ndaa loolu nag moom la wax fii sayfiya matxul matxul nabiyil matxul muntaqa laysul xasuut wa matxu alihi wa sahbihi al usul sama jasi mooy tag yonent bi nga xamne mom la yalla tan nga xam ne doon gaynde non yi iñani nga xam ni mooy yéefar yi ak tagg aalu bayt rasul ak tag sahaba mi nga xamne ñomit ay gaynde la mu wax ni tag yi jamono bu nek mbek mi nek ci alquran nek ci làmmiñu arab tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñom ma koy sa su nek da luñu yokkat luñu ñu أني مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قالت بشارة الكلام من مبدأ بوحن سخ مومي لملا تيالا مي بور دي بومي موماكو موملا مدح مني ملكني الصلاة والمدح المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك يالا مي بور دي بومي ماما ماما لي جولي تيونتي بي الله عليه وسلم اكتنغو ما دويلوكو نك wala si buur walla benn boroom jamono maanaam li ma yàlla defal ci kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam buur yi ñee nañ ma ci ah nitu yàlla yi it ma ci loolu kon muy loo xam ni luñ ko jagleel la mu yem ci moom eh, te jéggiwu ko dem feneen mu del wax ni tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo fegal mbooleem alkale yi moma tagal mbollem noni nga xamni dañu jéggi dayo mathi liman kaffa anni kull mahlakatin warada li kull jabbarin wa jamaah samay tag du jëm ci kudul ki nga xamni moma fegal mbollem alkanday moma tagatal mbollem kuy aji reey reeylu ba ngay aji mbeur lu mu delu ne daa khilami li mathil mustafa sanadi qahri laida duna asyafin wa armahi neena dafa am nak lu ma doon pousser ci tag yi lu la ci doon pousser mu ne samay khalima ak samay daa ñoo ma ci pousser luñ la pousser mu ne xanaa ci tag ki nga xamni mo moo ma notal samay non te jëfëndiko ma jaasi jëfëndiko ma ay xéet ñu kooku koy ko moy kan mu ne muhammadun khayri man ghabu wa man hadaru wa khayri atin wa tati minhu lil bushara nee kooku mooy moo Muhammad mi nga xam ni moo gën ci ñi dem ñi fi nekkoon ba dem moo ci gën ñii fi ne moo leen gën ñii ñëw ëllëgin moo leen gën te mboolem xeetu mbégte yi dana bàyyi ci jëmmam si di tàbb ci sama jëmm mu ne mu ne kooku xaasat bidaayatuhu maa xaasahul kurama waaye inda nihayaati maa misla lahu bashar mu ni kooku mooy ki nga xam ne fi gaa yi yem moom fa la tàmbalee moo tax ba muy ba muy ba muy àgg bi mu geesoo gisul ci gisul ci ginnaawam kenn mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maddal ilaahu lahu mamtaddatil fudala lahu huwal urwatul wusqa huwal xamar nee na yàlla muy buur li gaa yu baax yi doon xëcc jëm ci loolee la yàlla mooy la ñëpp jox ko ko teg ko ci loxoom moo tax mooy buum gu dëgër gi mooy royukaay wi mooy weer wi nga xam ne mooy leeral ñëpp kon nag loolu la ñuy tënk rek ba ëllëg bu ko defee ñu jublu ci njàng